salaamaaleykum mbokku internetu Dakar Midi ñoo amati mbégte ak kontante di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ah, di jaale ñi nga xamante ne moo ñu dal fàllu di la jaale mooy suñu confrère yi nga xamante ne décédé nañ ku ci mel ne Ousmane Abousi Yero di leen ñaanal yàlla suuf woyof seen kaw yàlla ñu xippee àjjana firdawsi lu nga xamante ne tiis loo xam ne dal na suñu kaw fàllu am na loo jot a sekk ak xale yooyu parce que sa côté liggéey gis nañ ku ci mel ne Yero lu bari yéen ëpp yéen doon nekk. Fallou ma di la nuyu maa ngi lay nuyu di nuyu mbokki Sénégal di mbukki nuyu mbokki àdduna di ñaan yàlla yàlla def ci jàmm ci réew mi di nuyu xalifa général yëpp rawatina sëñ Mountakha di ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam yàlla yàlla yàggal taxawaayam yàlla dundal ko mu wéral ko si bijaay Seydina Mohamed waaye abu maa ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp wax dëgg yàlla di jaaliwaat àdduna di jaaliwaat Sénégal. di ko jaalee suñu directeur euh, PDG daam Dieng wax dëgg yàlla ñoo ngi koy masoo bu baax a baax ndax si njabootam la dal dalul ci beneen njaboot ci njabootam la dal noonu dal ci beneen kër waaye ci këram la ko yàlla suñu borom dogal mu dal fa kon da koy sante yàlla suñu borom ñu nit ñuy dellu di sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala nga xam ne ñun ci yàlla la ñu jógee ci yàlla lañuy la ñuy dellu kulli nafsin saayixatil mawti ñun ay jaam rek lañ ay jaam yu xeebu lañ lii dafa nekk loo xam si ni wax dëgg yàlla yàlla moo ko namm ci ñun namm ko ci kër gi ala kulli alin fii lay am waaye nag dem na dem nañu dem bu rafet Abou Sy di nit koo xam si ni boo ko gisee muy yow la nga xam ne li muy def da koo gëm dafa dafa gëm li muy def xam ndox tax ma ne dafa gëm li muy def parce que dafa nangu xol bi xol bi moo bëgg gis nga ni mu ndawee noonu du lekk ndax dafa bëgg buggul dara tardé buggul dara tardé yoro ku ne xam na ne Sénégal ñàkk na cadre boo xam ne dootuñu ko amati li may wax ñiy seetaan xam nañu. ku nangu bañ na ko ba yow boo boo amul image sax boo wooyee yoro sax vite fait mu utal la image mu jox la image mu nekk xale boo xam ne ku nangu nekk koo xam ne ku bëgg nit. ñu koy jaali tamit waa Casamance Ziguinchor abu boo demoon Ziguinchor nga bàyyi àdduna barki seexul xadim boo demoon Ziguinchor nga xam ne àdduna du dara nit nag buñ la leen doo dara ngay mer li la tax ñuy wax comme yu mel nii nit du dara nit du dara wallaay nit du dara yoro boo demee Casamance nga xam ne mooy loolu nga xam ne Casamance la fa am amul fenn abu boo demee ci ay mbokkam nga xam ne àdduna du dara Ousmane mi euh, avant ñu ñu koy tàggee euh, euh, trois jours si ginnaaw ma nekk sama kër tëdd ay 9h mu yee ma ne ma fàllu fàqat am man sama turu émission bi ñoom lañ may wooyee te man maay ambianceur kër gi fàqat foo ne ma ne ko man maa ngi nii Ousmane jógaguma xam nga ko nekk si nelaw nag mu ne ma maa ngi nii ñëw naa maa ngi fora sama yaay moo feebar dama ko bëgg jëndal nag bu ko defee ñu saraxe ko mu ne bërët duggalee si yaayam rek mu ne bërët jóg jóg ndékkiwu ma sax fora laa ndékkee ma jóg bërët jóg dem xam fora dafa fa am ay nit waaw fooraa daral bi sama daral la ndax dama am ay nit ut nit ñi moo gën ut xaalis dañu fexe di am nit ñi ndax nit ñi lépp lu waay di am ut te utoo doomu aadama yi perte nga far yàlla sunu borom nag ñu ma utal ko li ma koy utal après ñu jël oto yóbbu ko defar ko seen kër noonu ba seen waa kër wax dëgg yàlla mu naan nañu jox diw nañu jox diw mu ne leer na ne Ousmane moo géré seen jàkka ji mu nit ku baax nit ku am diine nit ku nangu nit ku nangu usmaan bu wàccee sax bu wàccee sax ñiy xaar beneen chauffeur bi pour mu ñëw sax mu taade sax usmaan day teel chauffeur ba chauffeur bi ñëw mu daal di koy jox otoom dañoo ñàkk ñetti ñoo xam si ni wax dëgg yàlla ñu baax ñu gën si ñun ñoom ñëpp euh, li ma xam ci yoro xaw ma ko si ñoom waaye tamit gis naa si ñoom diine ak lislaam muy Abou Sy ak Ousmane yoro nag dafa nekkoon suma xarit nekkoon suma suma nit boo xam si ni ku ma wéetal wallaahi leer na ne ndey Maguette muy toog sama wet ak Aline Badara muy toog nii yoro daf ma wéetal yoro suma xamante ak moom dafa yàgg dama xamante ak moom dafa yàgg ñuy waxtaan ci ay projet yu bari samay xarit yi may àndal dañoo xam yoro ñëpp ko naqarlu su may xarit yi may àndal dañoo dañoo xam yoro ndax gis nañ yoro moom bu day jékki-jékki rek ne ma fàqat maa ngi ñëw sa koñ mu ne ko waa ñëwal bàyyi faale yaa ngi toog mu ñëw sama koñ ñu xàll commencé waxtaan gis nga àdduna nañuy dimbalante dëgg la bàmmeelu étage dafa am bàmmeelu terrasse dafa am amul mhm. nañuy dimbalante mhm. nañuy yërëmante ñu bëggante munoo xàmmee ki bu ñu tëralee ñoom ñëpp munoo see xàmmee ki am alal ak ki amul alal doo leen xàmmee ci biir ci biir barab yi mhm. xàmmewoo ci kenn nit ku baax jógee na fi wasifaar bët ki dee moo njaay di kilifa di coon sekk nit ku baax kenn gënu ko bi mu génnee àdduna la ñëpp ñëpp di xam kan mooy Thione Seck nit buy dund nag dañ ko war di xam dañuy bàyyi ba nit dee ñu koy soog a xam gis nga bu nit dee waroo bind di commenter walla ngay wax yenn kàddu yi. lu ñaaw. senegal Sénégal ay jëf yu ñaaw moo am Sénégal. ay jëf yu ñaaw moo am senegal fii ñu ne ay jëf yu bono fi am. mais ñi koy jëf nag ñoom ak yàlla la xanaa ñoom duñu dee al xam nga kan namul dara yàlla sunu boroom mais ñooñu di wax noonu xanaa dañ dul dee te ñi dee ñoo leen gën nañu fexe ñi dee ñu am lu mel noonu nekk ci Facebook bi di bind di yàq deru jàmbu naan waaw nangam ak nangam gis nga kër gi kër gi ñu nekk nii kenn moomu ko xam nga moom ki jël xaalisam def ko ci moo ko moom def fi ay jàmbur def fi ay nitam pour ñu liggéey am yóbbul seen njaboot waaye nit faatu nga war koo ñaanal defar ko ay xulli wallaawu ñaanal ko yàlla sunu borom yërëmal yërëm ko ngay bind ci Facebook bi di wax ay wax yoo xam ne mooy loolu gis nga dë dëkk bi kenn ragalul man de ragaluma te ñi may xam tamit di ma seetaan xam nañ ne man ragaluma mais dafa am yoo xam ne dafa ñaaw dafa ñaaw ñiy bind di wax naan ñaaw ak waa gisagoo leen dara kan mooy reye ku dul yàlla. waa kan kan mooy reye du yàlla mooy reye. yàlla moo ñu sàkk di. moom mooy reye di kenn dafa mën a reye. nañu bàyyi seen yi fi naafiq yooyu ñun ay xale lañ. mënuñ su ñun dara dara du xew as alu dara du xew ñun kenn mënuñ su ñun dara ku dul yàlla. gis nga wax jeeg yooyu yëpp mënuñ suñu dara yàllaa fi ne ku dul yàlla doo dara gis nga ne nit ñi dem liggéey yi te bàyyi wax ji ne nit ñi toog bàyyi toog seen kër ñiy toog seen kër di bind si Facebook bi xëyuñu gontuñu te ñi ñuy topp seen gannaaw di leen bindal ak yooyu faalewuñ leen dañu dem liggéey am seen yëfi bopp am seen i projet. boo demee da koy jëf amuñu sax table bu leen di xëyal. ma ne la dara amuñu ko. tus lu ñu dara amuñu ko fii ñoo ngi sant yàlla fii namuñu dara xam ndax namuñu dara ki ñu nekkal daf ñoo yiir yërëm ñu bëgguñu wane na fi sax bureau amul fi muy toog man dama koy tooñ naa ko amul fi bureau amul fi bureau man ma koy malak di ko tooñ mhm. ñun soxlawuñu lenn soxlawuñu lenn nañu bàyyi yàq bi senegal nañu bàyyi yàqante bi mhm. nit bu dee lan la ñuy war a wax inna lillahi wala inna ilayhi raji'un xam nga wax lu rafet ñaan ñaan dafa ñaan dafa xam nga dafa am fu mu lay delloo waaye nit gaañu ngay nekk fii di bind wala ngay wax yoo xam si ni wax dëgg yàlla waroo ko wax dafa ñaaw ne nit ñi delloo seen xel si yàlla àdduna dafa jeex de àdduna dafa jeex àdduna dafa jeex ñun gëmuñu kenn ku dul Sëriñ Tuubaa barki Serigne Bamba Serigne Touba rek la ñu gëm. Mm-hmm. di ñaanal sëñ Mountakha yàlla fi yàlla yàggal taxawaayam mu yàgg fi lool lool lool boo xoolee murit beeg tiyaan beeg ñoo ñoo ànd. ñaseen beeg laayeen bee ànd. ñoo ànd cana ba cana beeg euh, euh, xaadir bee ànd. waa léegi kon Sénégal nii la. Sénégal nii la ñuy àndee. nii rek la ñuy mel. waaye naafeq yi ñooy nekk si ginnaaw di bind di wax mm-hmm. nañu bàyyi wax ji. man ragaluma dara buñ ma tax a wax te buñ ma wax buñ ma taxee wax seen kilifal ci boppam laay attaqué wax lu ma saf dee benn yoon lu dund rek da ngay dund boo dee jeex na mais gis nga ñi ñi dem suñu suñuy nit ñi dem yoro abu si Ousmane o oh, yàlla ñu am lu mel noonu. abu ku nekk nga koy ñaan de parce que boobu ba léegi gis nañu wàccee kaamil ku dem ñeneen ñu ngi ñëw. waa Daaxa. waa Daaxa. Daaxa wàccee nañu kaamil. te awoon wàccee nañu kaamil. leew la ñaseen wàcce nañu kaamil waa yoof wàcce nañu kaamil Medina bàyyi wàcce nañu kaamil Tiwaawan Ngor dëkk bi wàcce nañu kaamil ñu ngi gërëm ñi ci jàpp ñëpp autorités yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm Bougane Gueye Dany def na geste bu rafet gay Gueye Dany ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant ak ñeneen ak ñeneen ak Zahra Iya Thiam tamit noonu. Aliou Dembeeru Saw tamit noonu. ñooñu ñëpp ay responsable yooyu yoo xam si ni wax dëgg yàlla bi ñu tiis tissu dañoo ñëw ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tudduma leen ah. bari nañu fa ñëw Youssou nduur ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant ñun xamal nañu am suñu naqar la ñu am ku ñu gis suñu naqar rek nga teewal ñu si rek wax dëgg yàlla jàpp nañ la ba faw kon abu ñu ngi ñaan réew mi yàlla si yàlla def jaam ñu ngi ñaan réew mi yàlla na si yàlla def jàmm nañu bàyyi gone yi ndaw ñu liggéey fii ñu fi gën a tuuti fii xam nga cadre bi fi gën a tuuti fu ne lay dem. dëgg la muy Ablaye naxataa moo fi gën a tuuti si xale yi fu ne lay dem sëriñ tubaa rek ñor ko booy fi nekk ñu barki Seydina Muhammad xoolal yaakaaruñu kenn. ku dul yàlla sunu borom sëriñ tubaa ak fu waay nekk nag tarixa boo bokk nga fa nga jokk rek fa nga yaakaar. barki Serigne Saliou. te na xoolal joxe cër xale yu nangu. na dañoo am yar billaahi wallaahi taalaay. fii ay naankatu sàngara néewuñu fi ay tuxkat néewuñu fi. fii ñu gëm yàllaa fi ne. sunu tonsa ngi ne toog doo gis nga fee mu toog ne doo ko gis sax. fee mu toog ne mën na fa toog ba ngoon ba ër wàccam jot mu jug dem yoonam. nañu bàyyi ñiy bind Facebook bi Facebook bi di wax leeral nañ ko bàyyi. bu ñu ko bàyyiwul nag man bu ma jugee ci ñoom lu ma saf laay def te seen kilifa laay attaqué te bu ma ko attaqué barki Serigne Bamba réew mi dina yëngu dañ ma bañ a buñ ma tax a wax ragaluma dara ragaluma dara ragaluma dara ku dul yàlla sunu borom ragaluma la abu ku dee loo ciy wax wax ju ñaaw te billaahi ñooñu ñooñu di wax wax ju ñaaw. aka ñoo am problème yi ñu war a lijjanti lijjanti wuñ ko mm-hmm. dangay bàyyi sa pande di lijjanti si woo jàmbur yàlla na ñu yàlla defal jàmm mm-hmm. yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ñu ngi ñaan ci ne mm-hmm. yàlla na suñu borom defal jàmm ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi wax dëgg yàlla yàlla yàlla tàppe xool yi ñu ngi ñaanal euh, tamit suñu nit yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñëw nañ fi yàlla yàlla def jàmm abu barki Serigne Saliou Mbacke yàlla ñu yàlla defal jàmm. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax ok.